voilà ñu lay fay Anna di nuyu auditeurs yu mi FM di nuyuwaat suñu ganuk bés bi di maître Amath Thiam nekk consultant en droit maître maa ngi lay nuyu. voilà maître Amath Thiam euh, ñu lay laaj si li nga xam ne rek moom mooy actualité bi euh, di leaderu Pastef Ousmane Sonko bi nga xam ne démb dañu ko placé euh, sous mandat de dépôt teg ci ndoddam huit chefs d'inculpation kon tey ji leaderu Pastef lan lay risqué ci kanamu yoon waaw ma ne kon tey jii leaderu Pastef lan lay risqué exactement ak li nga xam ne euh, moom la ñu teg si ndoddam ba placé ko sous mandat de dépôt. bon merci beaucoup euh, euh vous savez que Ousmane Sonko li ñu risqué xaw parce que li ko daal dafa métti parce que charge yi nga xam ne mën ko procureur des mën na ko procureur teg bari na te diis na te charge yi képp koo xam nañ la ko. mandat dépôt bi dafay obligatoire juge bi amul benn choix lu muy def mandat ñaar bi aussi li nga xam ne risque infraction yi ko procureur toppee c'est des infractions criminelles qui sont punies par des peines comme ay peine bi gën a ndaw dix ans la dix ans ba quinze ans vingt ans mais bi gën a mag mi commencé vingt jëm ba ilaa yomi din lu ñuy wax peine bi mooy peine yi nga nañ ko appliquer bi gën a ndaw daal dix ans ci infraction yi ñi nga xam Hmm. kon mën nañu wax comme lañ koy toppee comme par exemple euh, di euh, appel à l'insurrection lu lu la daal. bien sûr ça c'est lu graaw la yoo xam ne c'est prévu par les articles cinquante six a cent du code euh, du du code pénal du code pénal boobu nag nga fekk ñu ngi énuméré wax na infraction bu nekk. Hmm. yaa ngi fa yi xam ne lépp dafay jëm ci attaquer état bi ak ay bànqaasam wala ndërmalal kaaraange réew mi. soo ñu ci article cinquante six à cent moo fay wax moo koy wax modifié kon donc c'est le code pénal modifié boobu wax après terrorisme ak financement terrorisme voilà. kon tey jii euh, Ousmane Sonko dina xaar euh, ñaata euh, diir ci kaso bi avant muy am euh, procès ci dossier bu bees bi. non xam nga àpp mënoo ko xayma parce que en hmm. matière criminelle en matière criminelle détention bi amul limite. bokkut ak délit délit moom dañ ko limité dans le temps mais pénal en matière euh, criminelle mhm. la détention est limitée mën na nekk teg juróom benn weer mën na nekk teg at juge bi moom fa heure boo ko neexee mu ko déglu ko amee affaire bi ba ci waaw euh, procureur bi mu génnee keroog nee na parce que ñu bëri dañu euh, yaakaar ni bi ñu euh, jëlee Ousmane Sonko yóbbu ko euh, téye ko euh, li ñu ko condamné woon deux ans de prison par contumace ci mbirum bu Beauté donc loolu dafay daal di nul donc daan boobu dafay effacé wu mais procureur nee na daan boobu dara du si dëñ lii dossier bu bees la ça n'a rien à voir ak deux ans yi ñu daanoon Ousmane Sonko ci mbirum Sweet Beauté est-ce que loolu euh, si yoon euh, jàpp nga ni vraiment lu lu jaadu la. bu doon loolu boom bu doon euh, mën naa wax ne procureur am na ci droit parce que procureur mooy nekk ko su ko neexee chaque fois mu génn dossier topp ni su ko neexee aussi mu jàpp ni loolu nañ ko nangu procureur yoon moo ko jox mais ci benn wàll aussi ñun ñoo am àq yow yaa ngi ñëw génne dossier bees nga ne kii nii dossier compte Maxime yow da nga ko ajandi da ko tegaale fee laalu ko yaa ngi ci dossier bees bi nga xam ne moom la gën a ñor moom a diis nga ne ci boobu ngay liggéey mais kenn dina tuba dafa am ak ak yelleef yoo xam ne da ko am l'essentiel mooy li normal mooy parce que dossier sur li ci bëri bi ci mooy moom mu notifié ko boole ko ordre d'incarcération ou requisitoire d'incarcération mais pour que ba acte dernier acte mais li ma jaaxal na léegi man nan ngay jëlee ne def ko ci kaso yu pare ne waa ba pare ne contumace la na nga koy considéré contumace par def ko ci téye ko contumace mooy quelque chose loo xam ne dafa daw dañ ko tëj mu nekk fi mais yaa ngi ko téye sa loxo pare nga nekk contumace nga ne prise nga ne nga ne il est dans l'indemnisation pour une autre infraction mais de l'autre côté c'est sur la même tête de cette même personne nga ne contumace la pour que yaa xëy na régulariser loolu su ko régulariser dans ce cas là mën nañu jàpp Ousmane Sonko am na fukki fan pour wax ndax euh, accepté na ko wala accepté wul d' accord euh, ñu wax aussi si euh, li nga xam ne moom mooy parti Pastef euh, démb euh, daar daar bi ñu euh, placé sous mandat de dépôt ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko communiqué génn jóge si ministre de l' intérieur di ñu xamal ni dañu daal di tas parti bi di Pastef lu ni mel est ce que voilà yoon mën na ko nangu waaw la déet les partis politiques comme association yi la association rek la. Mhm. bon récépissé ministre de l'Intérieur moo koy joxe gannaaw boobu saytoo def enquête ak lépp lu ci aju bu ko defee mun na jàppale yéen li ngeen ni nii ndoxali réew mi ak euh, loi yi man man naka nangu man ngeen am association ngeen def li ngeen bëgg a def. Mhm. mais su demee ba ci digg boobu aussi mën na ko joxoon bu gisee ne objet bi taxoon jox leen bo ko ñu ko dévoyé wala mu ne plus mu s'inscrire plus la ligne de cet objet dans ce cas de figure Euh, ordonner peut-être la fin ou la même ou l'arrêt des activités la définitive ou temporaire des activités ci benn entreprise ci benn association fut-il parti politique loolu yoon moo ko may euh, si si si communiqué bi sax ñu ngi wax ni euh, par conséquence li nga xam ni moom mooy euh, moomeelu parti bi di Pastef lépp dañ koy daal di liquider loolu lañ lañ si mën a dégg exactement liquide maanaam bagage yu yu Pastef moom yi nga xam ne Pastef moom moomeelam la. Mhm. dañ koy dañ koy jël mais sele ko wala ñuy jaay ko c'est ça loolu bu wax su seen siège nekkoon maanaam Pastef day fay réer. moo mhm. war a jeex ci échiquier politique kenn wu paysage bi. dootul bi mhm. il doit rayer de la carte. paysage politique muy siège lépp. waaw yëpp dañ koy yëpp. force de l'ordre ñu fa taxaw jël ko jël leen kenn nekkatu fa fu mu mooy gérer seen siège fu bu nekkee dañ ko liwul këru jàmm dañuy bu nekkee dañ koy peinturoon passé dañ koy peinturaat beneen peinture ko. comme mhm. normal. Mhm. fu mu doon lépp lu ñu doon passé léegi am na ñoo xam ne ñu ne euh, maanaam décision bi dafa teel trop li gënoon a yenu maanaa mooy ñu xaar ba procès bi euh, taxaw bu fekkente ne dañu condamné Ousmane ko ci liñ koy toppee bu boobaa ñu mën a décider ne voilà kon Pastef peut-être euh, nekk na benn genre association de terroristes looloo tax euh, si loolu la ñuy basé wu pour tas ko mais fi ñu toll nii euh, ay tuuma kese ñu bëgg si basé wu pour tas euh, Pastef nekkul loo xam ne dëppoo na ak yoon loolu loo si xalaat. xam nga ñaari affaire yi bokkul déjà. Mhm. et puis deuxièmement aussi c'est une question d'opportunité là. l'autre administratif mooy apprécier parce que la décision bi nga xam ne moo résultat parce que loolu c'est une décision administrative côté la procédure la procureur moo ko yëkkati teg ko ci noor Ousmane Sonko loolu judiciaire la ñoom ñaar ku nekk da nga am sa indépendance sa yoon nekkul sa morom li muy doxalee. mais autorité administrative pare def na enquête administrative ba pare suuf gis am na fu mu ko teg procureur moom it def na ay gëstoom gis na ne li muy topp Ousmane Sonko am na fu mu ko loolu kese la mais nag li reste nag quant à question d'opportunité la war nañ ko def léegi war nañu war a rakkal si kanam loolu ñoom ñoom lay neex léegi def nañ ko léegi lan la yàq ci procédure pénale lan la yàq ci procédure procédure procureur dara yàqu la ci procédure procédure baa ngi kon ne procédure autorité administrative jël na jël ba tey tamit am na tamit ñu may laaj ba tey ma boo ma ko mayee. ma hmm, yegg ci waaw ñuy laaj naan est-ce que le fait ñu dissoudre Pastef ah est-ce que dana am benn conséquence juridique si ay député wala ay ay maire am. Hmm. est-ce que dañuy perdre seen mandat yi quoi seen mandat yi. waaw exactement aussi mën nga ñu si tontu. Hmm. voilà xam nga déjà boo commencé boo demee assi euh, constitution bi la constitution c'est la constitution protège le député et l'immunité parlementaire du député. ba def article soixante daf ne le député bi nga xam ne kenn benn ci affaire procédure am wala mu def ay affaire idéologie mhm. député bi aussi mënoo bi yoon daf ne wala mu ci règlement intérieur bi ak constitution bi daf ne un député peut perdre son mandat lorsqu'il démissionne de son parti nañ ne fii député démissionné seen parti bi ñu bokk dañ ko dissoudre mais démissionné benn mhm. ñaareel sur le plan juridique c'est l'article quatre cent quarante neuf du euh, code moom moo wax ne c'est le conseil constitutionnel qui arrête et valide définitivement la liste des députés kon liste des députés yi biñ danaaw bi leen réew mi joxe seen baat conseil constitutionnel moo ne ñi wa ñoo mën a nekk député gannaaw conseil constitutionnel moo xaatim kon décret présidentiel wala décision assemblée nationale mënul dindi lu conseil constitutionnel conseil constitutionnel c'était c'est c'est juridiction euh, tribunal la kon tribunal lu mu def këyit bu mu xaatim est-ce que euh, euh, décret président mënu ko sinon président dafay violable mi nekk ñaar ñetteel bi député boo xoolee député benn euh, euh, fi ñi mm-hmm. dem ci élection moo xam député moo xam seen maire bi ñu dem ci élection municipale wala élection euh, législative demewuñ ci turu Pastef ci bannière Yewwi Askan Wi lañ demee mm-hmm. ci coalition Pastef dafa porte dafa proposé ay candidat ñu demee ci bannière benn euh, Yewwi Askan Yewwi Askan wi moo leen porté à l'Assemblée nationale ñi ñi Yewwi Askan moo leen jox seen mandat mais kon donc la coalition benn euh, Yewwi Askan wi n'est pas dissoute mais c'est le Pastef qui d'accord léegi kon euh, est-ce que maître Amath ñu ngi jëm 2024 doon nañ dégg ñu naan euh, comme que candidature Ousmane Sonko dafa nar a takk suuf euh, Pastef na ut plan B donc possibilité boobu moom mënatul am Pastef mënatul am candidat ci ci élection présidentielle bu 2024 muy Ousmane Sonko muy keneen. mais yoon dafa ne bala ngaa bokk ci élection yi da bokk ci da lay porté wala coalition de parti wala nga nekk mouvement. euh, dirigé par des indépendants. Mhm. mais Pastef amatul il n'existe plus les partis amee candidat. donc te pour nga mën a bokk ci coalition bi foog nga am parti ba pare. foog nga dugg ci coalition bi waaw Pastef amatul lan la Pastef amee candidat kon mu nekk. Euh, maître Amath Thiam est-ce que si yoon ba léegi lay wax est-ce que si yoon euh, oui. Pastef am na chance existe waat encore. bon karaa ñu def recours ñu defee recours jël seen décision euh, arrêté euh, décret euh, décret yóbbu ko ci conseil cour suprême chambre administrative de la cour suprême. waaw su ñu demee ba ne administrative mën na ko niral bu ko niralee léegi mën nañoo nekk mën nañoo amaat mais su ko chambre administrative niralee moom c' est terminé après jeex na c' est terminé. même bu ñuy sos xanaa beneen parti lay doon. xanaa beneen parti wala seen militaire def ci yeneen parti mais mu passé ko mënut a amaat. voilà maître Amath Thiam maa ngi lay remercier bu baax a baax si leeral yi. merci madame jërëjëf. voilà merci beaucoup maître Amath Thiam may fàttali ne il est consultant en droit maître Amath Thiam merci di leen remercier.